xam nga tension politique du ñàkk kooku moom dama la koy wax dans tous les pays du monde depuis bi ñu accédé indépendance bi léegi xam nga ne dafa am opposition am pouvoir mais nag euh, yenn yi mën na ñàkk mooy d'abord bu fekkee ne yow da ngay acculer à chaque fois su say opposants d'ailleurs la démocratie démocratie bi ñi ngi ko war a ñoŋal nga xam ne li ñu doon bañ si ci Ablaye Wade Abdou Diouf ak Senghor yow boo ñëwee yu yëpp da nga ko war a xoolaat et puis dañuy gis nii Sénégal problème bi mu njëkk am mooy problème article vingt sept muy indi problème bi mooy deux mandats yi le problème de mandature ñun yaakaaroon nañ ni bu ñu accès fii aujourd'hui en deux mille vingt vingt trois problème mandature waratuñ ko. c'est ça loolu mooy dëgg moo indi problème yu bari troisièmement mooy d'abord ma toog bi parce que par ñëpp ci am part de responsabilité entre les politiques ñu sommes des opposants mais tamit dafa benn rek lu ñu boole ñun ñëpp. parce que Sénégal dafa différent aux autres pays mais gis nañ ni Sénégal mi ngi a bouleversé jëm foo xam ne bu ñu deful très attention lu ñu yaakaaroon mën na am ci réew mi mais li ko waral ki war a firi ñëpp mooy ki nekk ci bopp réew mi benn benn point rek mooy am mooy def naa ñaari mandat constitution bi maa ko defaroon wax naa ko fépp d'ailleurs que ni élection yi ñëw duma ci bokk bu kon rek dëkk bi am tranquillité et deuxièmement ñu régler yeneen question yi mooy question de ñenn ñoo xam ne dañ leen barré par l' article vingt euh, l' article vingt neuf et trente ak l' article cinquante sept et cent douze ñu xoolaat nu ñu koy waxtaanee parce que dañ dañ dañ ñoom dañu évoqué benn question de dialogue dialogue foo ko gis ku ne amul tension nga imposer dialogue kon dëkk ba am na tension. mais mais justement si on revient à à, à tension yi. Mhm. yéen opposition. lan moo si seen part de responsabilité boo déggee sama question dama ne la à qui la faute yéen fan ngeen ci situé woo ci li xew ci réew mais faute bi kay bu amee kay c'est les tenants du pouvoir. et vous et vous dans tout ça et vous dans tout ça non attends xam nga dafa am fenn foo xam ne mun ngi opposé tàmm nañ Afrique brutaliser des opposants à chaque fois bu nekk opposition. lu lu am rek yow lañ koy yow lañ koy sotti même bu amee sax entre nous ak ñoom les manifestations yu fi amoon ñu nekkoon ci régime bi bi ñu ñëwee dañoo accélérer les dossiers ba si léegi bu opposant amee dossier dañ koy accélérer bu fekkee ne ñoom la seen biir kenn du ko accélérer regardez ce qui se passe ci Covid bi ba léegi déggu leen dossier bi est-ce que autosaisine dañuy dégg ab procureur génn wax ba tey inquiété wu leen tey bu doon opposant la tey dañ koy def fast track yaa sa yooyu dafa am ay problème ak à chaque fois combien d'opposants ñoo nekk tey jii si si si prison bi mais bu fekkee ne tey jii dañuy wax kay si boor bee la ëppee parce que ñoom ñoo yor nguur gi nguur boo ko yoree dafa am ñett yoo xam ne mu ngi ci yow lañ daan wax rek bañ nekk moi j'ai pratiqué le pouvoir avec Abdoulaye Wade Macky Sall mii ñoo nekkoon ci pouvoir ba muy nekk ministre ba ak ci premier ministre en man si accompagné Abdoulaye Wade pendant ces douze ans Macky était dedans moom xam na la mooy pouvoir parce que nekkoon na ministre de l' mais bu ñu ñëwee gis beneen Macky Sall man chaque fois dama naan man makki Sall bi ma xamoon ak Macky Sall bi man dama gis ni benn président bu xaw a violent brutal président il n'a pas l'air non non non non attends dialogue moom wax la benn affaire Sénégal moom pays de dialogue la